أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk jullit yi noo ngi ànd ak yéen ba tey ci téere borom bi tabaraka wa taala ñu toll ci suura al an'am bi iznillahi tabaraka wa taala ñuy jël tey ñetti aaya aaya 141 142 143 di jàng ci ñetti aaya yooyu ñeenti mbir bi ci njëkk mooy ibaaxatul akli tamri wal inabi war rumaan wa zeytun tey li ñuy jàng dana ci bokk daganal gi sunu borom subhanahu wa taala daganal ci ñun lekk tàndarma ak raisin ak garab googu ñu naan garanaat ak zeytun mu nekk ñeenti meññeef yoo xam ne ci garab lay bàyyeekoo sunu borom subhanahu wa taala baaxe ñu ko daganal ko ci ñun ñu koy jëfandikoo mu daganal ko ci ñun ñu koy lekk waaye benn bu ci nekk aussi di nga gis ne jëriñoo ko dina la jëriñ ci sa dund waaye dina la yokk wér benn bu ci nekk gis nga tàndarma soo wooree ba ngoon ñu ne la na nga ko lekk loolu xam ngeen li ci médecine wax ku am doom ñu ne ko na lekk tàndarma gis ngeen Maryam alayhi salaam keroog ba mu amee doom sunu borom li mu ko wax mooy yëngalal garab gi ëkku tàndarma gi doom yi dina wàcc yu tooy xepp nga lekk ci loolu xam ngeen ne am na lu ci borom xam-xam yi encore di wax ci wàllu médecine ci deret jooju ngay perte soo lekkee tàndarma remplacer gi mu koy remplacer ci koo am doom waaye woor ba ngoon sax nga xam ne sa deret depuis suba lekkoo doge bi ngay dogee tàndarma ndekki du hasard filtré bi muy filtré sa deret di ko bee salaat kon gis ngeen waaye sunu borom daganal ci ñun garab googu ñu naan inab te mooy raisin moom it nga gis comme tàndarma ci ay njëriñ ak ay xéewal noonu ngay fekkee grenade noonu ngay fekkee zeytun moom sax garab la goo xam ne njëriñam sunu borom subhanahu wa taala da ciy giñ wa tiini wa zeytun ñaareel bi mooy wujubu zakat fi zeytun wa tamr wal xubub iza balagati nisab yoonal dana jàng tey yoonal gis sunu borom subhanahu wa taala yoonal ci ñun su fekkente ne bay nañu ba mbay mi jeex mbay moomu nag mën naa nekk raisin mën naa nekk tàndarma mën naa nekk bépp grain buy sax ak lu mu mën a doon soo bayee ba pare su fekkente ne li nga bay mat na nisaab yoonal gi ñu yoonal ci yow nga génne ci azak kon képp ku bay ak mbay mi lu mu mën a doon su ñoree ba nga góob ko diine ji di lislaam yoonal na ci yow nga génne azaka waaye kañ li nga bay bu fekkente ne mat na nisaab nisaab ñaata la mbokk yi xam ngeen ko dafa am benn nattukaay bu ñuy natte ci azak même ci alal xaalis li nga denc su matul nisaab doo génne azak kon ñun ñëpp war nañu xam nattukaay boobu di nisaab ñaata la ak lan lay nekk pour nga génne azak semaine ba le passé am na benn waay bu ma woo ne ma denc naa nangam ndax war naa ci génne azaka yaakaar naa 400 la ma wax 400000 xaw ma 500000 denc naa ko at ba at bi ñëwaat ma ne ko xaaral ma xool bi ma xoolee dama fekk du génne azaka lu tax matul nisaab kon ñun ñëpp war nañ xam nisaab nisaab ñaata la ah ci waaw léegi pour ñu xam euh, dayo nisaab ñaata la nisaab ñu ngi koy nett ci gramme or day nekk 86 gramme or li nga denc su ma nee jënd 86 gramme d'or rek mën ngaa génne azak li nga denc ci alal léegi nag mu des kon war nañu xam or bi ñaata gramme bu nekk ñaata lay jar foofu nag mooy wax ci lu tax yenn saa yi doo ko mën a takk duñ la ko mën a laaj tey nga tontu ko tey lu tax parce que or bi day yéeg di wàcc maadaama day yéeg di wàcc kon foog nga teewlu ba xam qualité parce que ba encore beneen ñett ñaareel bi mooy or bi ay qualité la foog nga xam ñetti qualité yëpp or bi ñetti qualité yëpp benn bu ci nekk gramme oram ñaata lay jar pour nga xam ne waa ji mën na cee génne azak léegi bu fekkente ne xam nañ ko waa ji lu mu yor léegi mën na 86 grammes d'or léegi kon day génne azak léegi na lay génne azak mooy 10 000 bu nekk mu ngi ciy génne 10 000 bu nekk ñaata la ci génne ah 250 250 ah ñaata lay doon bu dee 10 000 bu nekk 250 la ci génne soo amee 10 000 ñaata lay nekk non non 1000 francs bu nekk lay génne 25 1000 francs bu nekk 25 francs la ciy génne 10 000 ñaata ñaata 1000 francs la 10 kon ñaata lay nekk 250 lay génne ci ñaata kon ci 10 000 bu nekk 250 la ciy génne mais gis nga doomu aadama yi nga denc 10 000 at ba at bi ñëwaat ñu ne la génne ci 250 ngay ngott ngottul waaye léeg-léeg nga gis li tax li tax xam nga ne du question 250 yi xam nga ki am 10 000 ñu ne ko génne ci 250 rapidement léegi mën na joxe téeméer ci 10 000 bi naan day dew ne na man damaa baax di 10 500 ngi nii waaye xam nga fan la wax ji nekk waa ji dencul 10 000 ay millions la denc millions yooyu bu ko calculer léegi ah day gis ni xaalis bu bëri laa war a génne léegi nag su ko defee Iblis naan ko hey la ilaha illa 3 millions nga nar a génne azak 4 millions nga nar a génne azak 500000 nga war a génne azak su ko defee problème commencé am nga gis ñu commencé di la woo téléphone naan la waaw azaka moom est ce que mën naa ci fay samay bor ñenn ñi naa la waaw est ce que mën naa ko jox sama pap wala yooyu yëpp lu ci seen est ce que mën naa ko jox sama yaay waaw est ce que sax moom sa di ko jéem a xëcc ci wetam pour daal na ci coppati fekk yooyu yëpp seen ne azaka ñi ko moom yàlla wax na leen yàlla daf leen tracé kenn amul droit di ci dugal sa mbiru bopp waaw beneen bi waa nan lañ koy joxee azaka kay boo ko génnee da nga koy jox benn nit bu dee tuuti la ah da nga koy jox benn nit bu dee un million la nga séddale ko ñaari nit ñu jëriñoo ko wala tey am na boo yoo xam ne am na nit ñoo xam ne tey fii ci dëkk bi li ñu yor di ko jaay soo boolee loolu ñu yore pañe boobu ñu yore moo xam socc la moo xam guro la moo xam tàngal la moo xam ay peeru dàll la moo xam bale yooyu ñuy balee la soo boolee loolu yëpp matul 500000 wala dèjà kon boo fekkee kenn ku bëgg a liggéey ci loolu nga jox ko 500000 yi mën na liggéey wala mën na cee liggéey wala mënu cee liggéey ah kuy 50000 yu mu xëyee ñu jox ko 200000 wala ñu jox ko 300000 wala ñu jox ko 500000 am na lu mu xëyee wala. ça loolu mooy wax ci waaye war a génne azak un million def ko ay mille francs mille francs def ko ci ay enveloppe denc ko sa kër nit ñi bu ñu xëyee raa ngay joxe mille francs mille francs boo joxee tey ba sonn dem toog noppalu suba nga xëyaat ñu naan se kii a baax fekk amul benn njëriñ xam nga ne mille francs jëriñul kenn dara nit bu ñu koy jox azaka dañ koy jox loo xamante ne ah dootul dootul tàllal loxo naan dimbali leen ma loolu mooy joxe azak moo tax lislaam noonu la ko gisee mais gisewu ko ni ko nit ñi di defee nii ay 1000 francs 2500 250 nga xam ne tey bu ñu la ko joxee suba nga taxawaat ci buntu kër waa ji di yalwaanaat waaw mu benn njëriñ mu ngoog moo tax Omar ibnul Abdul Aziz ku mu joxoon azaka danaa la bu mu la gisati ngay laaj ndax suñ la joxee bokk na ci ku lu mu la daan wax mooy yow déwén di nga joxe azaka waaw dana la jox loo xam ne déwén di nga liggéey ba denc ba joxe ci azaka yow tamit loolu mooy jëriñ waaye azaka boo xam ne daanaka bu ñu la ko joxee dalay sonal ah loolu moom vraiment du teggul la coono mais daf laa yokk coono loolu musiba la yàlla nañ ci yàlla musal kon sunu borom subhanahu wa taala mooy ki nga xam ne moo yoonal ci ñun ñu génn azak ci mbay mu ñu mbay ak lu ñu mën a def garab la bu saxee ba ñu toll ci lu toll ne nisaab dañ ciy génne azak mu ne wa huwa xamsa aw saq wala mu ne situna saa situna saa buñ koy firi ci olof wa saau arbau xafnaat li mooy saa nga ñëw ci tàndarma la nga daal di jël sa ñaari tënk yi ba mu fees benn ñaar ñett ñeent loolu mooy tolloog mooy tolloog lan mooy tolloog saa su fekkee ne moom nga bëgg a génne génne wuloo xaalis kon chaque jour li ngay génne li ngay natt mooy benn quantité bu ñu lay wax ne soo defee ci say saak nangam nangam nangam ba saak fees léegi saak boobu wala ñaari saak yooyu wala ñetti saak yooyu li nga ci génne azaka mooy loolu ñu naan saa saa bi pour ñu natt ko foog nga def ni sa ñaari ténk ba mu fees daal di sotti ci beneen côté bi comme noonu ci xar yi ci nag yi dañ naan la boo amee nangami nag di nga génne benn xar noonu ci gëléem yi noonu ci xar yi noonu ci gàtt yi ci béy yi chaque jour noonu la naka noonu tamit ci alal ji chaque jour dañ lay wax ne nombre sàngam boo ko amee da ngay génne azaka nangam waaw loolu nag jullit bi yëpp jullit yëpp ko war a xam surtout nag ñi nga xam ne yàlla baaxee na leen ñu yor alal ñenn ñi yàlla baaxee leen ñu yor ay jur ñenn ñi yàlla baaxee leen ñu yor ay tool war nañoo xam ne tool yooyu islaam am na ci àq war nañoo xam ne jur yooyu islaam am na ci àq war nañoo xam ne alal jooju yàlla dénk leen islaam am na ci àq mu ngoog ñetteel bi ñuy jàng tey mooy jawaazul akli min at-tamr qabla juzuze islaam daganal na lekk ci meññeef moo xam tàndarma la moo xam lu mu mën a doon balaa ñu ciy génne azaka lislaam daganal na nga lekk ci waaye balaa ñu koy dagg sax di ko jàll lislaam daganal na ñu lekk ci waaye nag kan la wax mu lekk ci kan ah kan la ñu wax mu lekk ci boroom yow mi ko moomul moom sa yoon nekk ci dooro balal jaambur bi ti lekk naan lislaam daganal na ci man ma lekk balaa ñu koy dagg de moom moo ko di amma ki ko moom lislaam daganal na ci moom balaa mu ciy génne azaka mu lekk ci waaye islaam daganal na ci moom aussi balaa mu koy dagg ci garab yi di ko jal wala di ko sol ci saaku bu ko neexee mu lekk ci loolu moom dagan na waaye nag nañ moytandiku li xew léegi ci jamono nga xam ne bu ñu bayee balaa ñuy lekk ñu ne foog ñu génneel ci tuuru dëkk bi wala foog ñu génneel ci buuru àll bi rab yi ci àll bi loolu moom cirque la waaw moom du diine te nag loolu moom dafa bëri tey ci Sénégal dëkk boo dugg su nawet bi jotee suñu bayee ba pare balaa ñuy lekk da ngay gis ñu daal di jël yóbbu ci xërëm yi waaw loolu moom du diine moo xam mango la moo xam màdd la moo xam moo xam moo xam moo xam lu mu mën a doon même bu dee dugub wala mboq da ngay gis ñu dagg ci mboq mi wala dugub ji wala witt ci gerte gi buddi ko daal di koy jël def ko ab dank yóbbu ko ba ci xërëmu dëkk bi daal di ko koy jalal loolu moom musiba la suñu benn xarit imam la professeur la français nee na dëkk bi muy jàngale dafa ànd ak waa dëkk bi tool gaa yi ne ko ku nekk ne ko dinañ la may nangam ku nekk ne ko dinaa la may mu ne bu ma kenn may ba ñu ñëw ba ci kër yi kenn ku nekk mu ku mu àndaloon mu dem ci sa kër ne la sama wàll gaa yi ne ko waaye yow lu tax bi ñu nekkee ci tool yi ku nekk ne na da lay may nga bañ mu ne parce que su ngeen ma mayee bu ma ñëwee ba ci yoon bi da ngeen a jàdd joxe ci xërëm bi mu ne waaw ma ne mu ne man kon du du ma ko def te da ngeen may indil problème te loolu laa doon bañ moo tax ma bàyyi leen ba ngeen ñëw ku nekk nag man la indi sama wàll buñ ko joxoon foofu ca tool yi rek buy jàdd joxe ci xërëm bi ndax loolu mooy seen aada waa dëkk bi ndax nee na keroog ñoomu àndaloon ñëpp jàdd nañ ku nekk coppati ci lim yor teg ci xërëm bi nga loolu moom ci ay jullit te loolu moom musiba la sama soxna yóbbu na séet ànd ak sama benn dëkkandoo dañoo yegg ci dëkk ba wàcc mu daal di copp ci suuf si seex kooku ne ko lii nag mu commencé indi ay protocole ñu yekkal leen añ li mu njëkk a def dank première dank bi mu dank ci suuf la ko teg kooku laa jaar ko mu indil ko ay protocole yi kenn xamul mooy lan yooyu yëpp ay xeetu xërëm la yoo xam ne tey mu ngi ci biir dëkk bi waaw bala ngay lekk boo demee ci dëkk bala ngay lekk saraxal rabu dëkk bi dankal benn dank sànni ko ci suuf wala boo lekkee boo boo wàccee ci dëkk bi boo bañee dara dal la fa da ngay coppati ci suufu dëkk bi lekk yooyu moom vraiment salte kese la waaw waaw salte moom weesul nga jël dankub suuf boo xam ne lépp lañ ciy def nga sax ko di ko lekk yal nañu yàlla musal ñeenteel waaw kon bi ñuy jël tey ci sunu dars mooy xurmatul israaf fil maali yàlla daf ñoo tere yàq alal yàq gi nag nu muy nekkee bi an yunfiquhu fi ma la yaani nga jël alal di ko dugal foo xamee ne wax dëgg yàlla amul benn njëriñ comme tey ni mu amee ci jamono aw yunfiquhu kulluhu wa yatruk li ahli wala yatruk li ahli shay wala nga jël alal jëpp joxe ko doo bàyyi sa waa kër dara wala sahaaba ba bi mu feebaree bëgg a joxe alalam yëpp yonent dem na ko déedéet fexeel looy génne bàyyi ko sa waa kër ndax sa waa kër bu leen bàyyi ñuy taalal loxo wala nga bàyyi leen ñuy wiiru ci kaw nit ñi kon alal ñaar moo koy yàq nga def ko foo ko warul def dépassé ko foo ko warul dépassé wala nga daal di koy joxe mu jeex nga daal di des ay cundung loolu moo loolu bu ko kenn def alal li olof yi di wax rek du faj dee waaye lu muy faj gàcce te ku am alal normalement su fekkee tiyaaba rek nga bëgg tey jii ci waxtu yu ñu nekk sunu borom subhanahu wa taala dina la baaxee nga am tiyaaba ndax nit ñi moom xam ngeen tey nit ñi ni ñu sonnee waaw guddeeg bëccëg nit ñaa ngi tàllal la soo demee ci hôpitaux yi di nga fekk ñoo xam ne dañoo tëdd amuñu lu leen faj boo duggee ci biir dëkk bi di nga gis ñoo xam ne amuñu lu ñu lekk amuñu lu ñu naan amuñu lu ñu sol ah nit ñi dañoo walaakaana walaakaana walaakaana moo tax mbedd mi saa yoo tourné nit ñaa ngi laaj nit ñaa ngi rang ci kër yi di laaj guddeeg bëccëg di ñaan ay ndimbal jour vendredi chaque jour booy ñëw fii day fees del ku nekk day ñëw nangam nangam nangam nangam lu ko waral mooy nit ñi alal yi ñu yor bañ koo dimbali ay seeni mbokki jullit mu moo tax alal ku ko yor war nga ci jaamu yàlla tabaraka wa taala dimbali ci jullit yi tabaski baa ngi nii di ñëw di nga gis koo xam ne day dem jënd xaru un million kii jënd xaru deux millions fekk xar ba ñuy jënd publicité ci télé bi ñu naan kenn mënu ko jënd nga gis benn waay jënd ko waaw indi ko ci buntu këram yeew ko foofu ay fan toog ci piliyaanam nag jàkkaarloo xar bi pour lan gis rek gis tal rek ak tur xaru un million ñaata xaru cent mille nga ci mën a am ah dix nga bàyyi ba guddi nga takk ko kër gu nekk nga fëgg borom ne ko bismillah bu ko kenn yëg loolu ñaata yaaba la ah waaw bu dee 2 millions nga war a jënd sa kuy 2 millions ñaata 100000 la ñaata xar ñaata xar nga ci mën a am yow mën a dimbali ay nit ñaata waaye duñ ko def financé benn podium financé benn soirée wala dem ci benn soirée di baatare ngay gis jouru tabaski ñu génne télé nga gis kuy baatare naan nii dégg naa am na benn woykat bu ñu solaloon gramme bu 10000. ah grand boobu bi ñu ko soxla lépp 10 000 la ba mu fees loolu est-ce que amul ñu ko soxla est-ce que amul tey ci biir dëkk bi ñu ko soxla ñu ko aajowoo. yal na yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp yal na yàlla woon neen wërsëgal ñu sori ko kon yàlla day tere ku yàq alal ci dépassé ko foo ko warul dépassé ci jox ko ñoo ko warul jox dugal ko foo xam ne waroo ko fa dugal. wala yow nga yor ko joxe ko aussi ba mu jeex yow tamit nga mujj di tàllal loxo loolu tamit musiba la ñaar yooyu yëpp sunu borom daf koy tere kon loolu mooy li nga xam ne moom la ñuy jàng tey mu nekk sunu dars ñoo ngi ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu dëgëral sunu làmmiñ ba du ñu tarxiis kon aaya wo aaya yooyu la ñuy jël tey bismillahi rrahmani rrahim sunu borom subhanahu wa taala mu ne wa huwa alladi mooy ki nga xam ne ansha'a moo sos moo def xalaqa moom sunu borom subhanahu wa taala mooy ki nga xam ne moo ñu defaral jaala xalaqa moo ñu sosal moo ñu defaral jannatin ay jardin jam u janna wa hiya al bustaan mooy jardin lëndëm gi mu lëndëm fatt gi mu fatt moo tax ñu tuddee ko tur boobu nga xam ne nit bu ci duggee sax yenn saay garab yi mënees na kaa nëbb ba kenn du ko gis ci biti loolu nag sunu borom subhaanahu wa taala mooy ki ko sàkk am na ci yoo xam ne maarushaat dañoo yëkkatiku ci kaw wala ñu def ay bant yoo xam ne dañ leen a yëkkati ba du ñu laal suuf ndax firi yu bañ a yàqu comme comme raisin wa gayru maarusaat ak ci yeneen yoo xam ne dañoo taxaw cund te dara teewu leen lu mel ne garabu tàndarma garabu koko garabu garabu garabu am na ci garab yoo xam ne sunu borom subhanahu wa taala ni mu leen bindee ci suuf lañ nekk duñ jóg kaw am na garab yoo xam ne dañuy law am na ci garab yoo xam ne dañuy jóg ba ci kaaw tuuti rek daa taxaw duñu njool am yoo xam ne day njool ba nit du leen mën a laal wala am na ci yoo xam ne nit ñi sax ñoo leen di yëkkati pour ñu taxaw daa jël leen ay bant ñu ciy langaamu ñu ciy law yooyu yëpp ay façon garab la yoo xam ne sunu borom subhanahu wa taala mooy ki ko def waaye doomu aadama sàkku ko de yàllaay ki ko def maarushaat wa gayru maarusha mu ne wan naxla ak tàndarma moom yàlla moo ko def wa zara ak mbay ah lijum yi yi yëpp boo jàngatee da ngay gis muxtalifan ukluhu lekk gi dafa wuute wala ah wala am na garab goo xam ne dafa wex xat comme ah pompal moussa am na garab goo xam ne dafa lewet ah comme ah dégguma la nawe am na boo xam ne dafa saf suukar comme am na boo xam ne dafa saf kaani am na boo xam ne dafa forox li ngoom am na yoo xam ne nag lewetuñ foroxuñ wexuñ safuñ amuñu suukar comme ay batañse ah ay karoot dafa am suukar mu ngoog noonu la yàlla bindee te waaye loolu yëpp di yàlla wax nii ne muxtalifan ukluhu lekk gi dafa wuute yooyu yëpp xam nga lu ci doy waar tey su ma doon ataaya ma togg ba mu ñor ma fuural ba mu fuur ma jël xorom def ci yéen ñëpp ma jox leen ngeen naan lu muy saf ah ah lu tax muy saf xorom lu tax muy saf xorom ah parce que xorom laa ci def su ma ci defee suukar su ma ci deful suukar su ma ci deful suukar lu muy sax warga bi su ma ci deful suukar lu muy def lu saf dara day wax am na benn benn sëriñ xam nga nu mu doon nappee nit ñi danaan ataaye leen bu ne ataaye leen mu génne warga beeg suukar beeg dé bu génne warga naanaa daal di teg ak palaat beeg tout mu ne taalibe bi ataayel mu jox ko satala bi su ko ne su ko kooku ne nañ suukar ah indiwoo suukar de mu ne ko baax na ataayel noonu rek dina saf su waa ji paree joxe rek yëf yi saf neex ñëpp di yuuxu lu tax nit ñi di yuuxu ah du ngeen ma wax lu tax waa ji nit ñi di yuuxu parce que joxewul suukar te saf na suukar gars yi di yuuxu dafa ne kii dafa am xam-xam wala borom kiim daam la ndeke satala bi lay suukar balaa nit ñi di ñëw satala bi satala bi satala bi ñu ngand yooyu yooyu lay jën def ci ndox ba mu fees suukar ko ba ñam ko ba mu saf teg moo tax gars yi xamu leen pexe yu ñuy def pour am ay taalibe yu bëree ngi ni ngeen di gis nit ñi topp leen di yuuxu ngeen defe ne dara la fekk du daara ay magi la wala ay caaxaan yu ñu leen won nii rek ñu defe ne dëgg la fekk dara amu fa wala benn complot benn complot benn dëj laa demoon fan yi passé benn waaye ñu jox ko kàddu la jox ko micro bi mu naan waaw waa jii dee bi ma ko seet see barki démb damaa fekk yonent bi toog ci tànk yi sëñ diw toog ci bopp bi xoolal loolu rek ñëpp di ko dégg ah naan yonent bi laa fekk mu taxaw ci bopp waa ji sëñ diw taxaw ci bopp bi cheikh diw taxaw ci bopp bi waaw ngeen defe ne loolu dëgg la seen diggante ak yàlla yéen yéen ragal ngeen loolu dëgg la xam nga ne loolu du dëgg de xam nga ne loolu du dëgg waaye loolu lan moo tax nit di ko def di fen ci kanamu nit ñi kanamu jullit ñi ngay fen naan damaa fekk yonent bi toog ci tànkuwaay ji moom sax xanaa yonent bi ci wetu bopp bi la war a nekk bopp cheikh diw nekk ci tànk yi waaye yonent bi moo nekk ci tànk yi cheikh diw nekk ci bopp bi vraiment c'est difficile Sénégal kooku tamit kilifa googu tamit kilifa googu tamit noonu la doon def te ku siiw la ñu bëri xam nañ ko satala bi la daan suukar su ko defee rek bu paree ataaya bi ñëpp di yuuxu mu xiim gaa yi di xëm ñii di dof doflu fekk dara satala bi la suukar waaw danaan waa ji ataayal satala ji kooku def fuural dangam nangam su ko nee suukar mën a joxee rek su joxee rek ñëpp na ku daa ku naan rek yuuxu fekk satala bi lay suukar balaa ñuy ñëw waaw gars yi lu ne la ñuy def lu ne ñenn ñi dañuy complot rek waaw complot ak ñoom ne nangam ak nangam moo am fekk dara amu ci. yal nañu yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yal nañu yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori ko sunu borom ne wan nax la mooy tàndarma wa zara ak mbay mooy li ñuy ji yëpp. li jim yeeg tout muxtalifan ukuluhu ñam gi cafka gi dafa wuute waaye xam nga lu ci yéeme mooy yooyu yëpp tusqa bi ma in waahid benn ndox moo koy roose normalement garabu mango ak garabu kaani waruñu bokk lekk xam nga bokkuñu waaye ndox mi ñu leen di roose warul bokk wala ci xel ndox mi ñuy roosee kaani waruñu ko roosee mango wala waaye xoolal yooyu yëpp moo lim sànq lan lañ ñu ci wax tusqa bi maa in waahid benn ndox lañ koy roose benn ndox bu dee ndoxu dex bu dee ndoxu robine bu dee ndoxu teen ndox mi lu mu mën a nekk moom la ñuy roosee garab gi garab gi bu ñoree luy xew fruit wi daal di saf suukar bu dee bu war a wex la mu wex bu bu dee bu war a forox mu forox waaye lu ci doy waar mooy leen yenn saa yi nga gis garab goo xam ne yaay ji mu bàyyeekoo yaay ji dafa lewet waaye doom bi wex xat xoola kaani kaani reeni garab gi wala garab gi wexul waaye xoolal doom bi ni mu mel jaxatu xool ni mu wexee te garab gi wexul xoolal loolu kon yàlla tabaraka wa taala ay kéemtaanam ak ay mbiram wees na xalaati doomu aadama li moo tax alxuraan ñun ñëpp ñu war ko jàng ndax ñu war dañuy jàpp ne lii lii nag lu ko yàlla di doyee fekk lii ay dalaa il la yuy wane ne yàlla mooy yàlla dañ ko war a wéetal kenn waru koo bokkaale moo tax yàlla di faram-fàcce yu mel nii pour suñu xel yi mën a nàcc garab yi mu la limal lépp tey boo xoolee wàllu fir wi xeetu fir wi yi nga xool xeeti lijim yi ah nga xool yeneen yi nga xam ne bokkuñu ci fruit yi bokkuñu ci lijum ñaata la kan ma ko mën a wàññi kan ma ko mën a wàññi ci ñun kenn mënu ko ba pare kan moo ko saxal aussi fan la jóge lan mooy cosaanam ci kaw suuf kan moo ko fi indi ak lu tax ñu koy ñu koy lekk ba pare waxuma lekk gi waaye xoolal jëriñ bi muy jëriñ doomu aadama ci ci wàllu wér gu yaram balaa ñuy topp tubaab yi ci seeni musiba yi ñu indil tey nga xam ne bokk na ci li tax doomu aadama yi di feebar mooy garab yi ñuy naan produits chimiques yi ñuy utiliser mais addina bi bi ñu nangulee woon yàlla yem ci li leen yàlla indil boobu yëpp amul boobu nit ñi dañuy dund at yu bëree bëree bëree bëri c'est parce que doomu aadama yi fu ñu nekk rek garab yi fa nekk loolu la leen yàlla def mu leen di faj amul benn feebar bu yàlla def lu dul yàlla indi na garab gu koy faj loolu xadis bu wér la yàlla musta indi feebar lu dul am na garab gu koy faj léegi nag lan moo ñu alak lan mooy sunu mbir mooy topp tubaab yi ñu ñuy jox ay produits chimiques xoola cancer yi xoola jabet bu njëkk ba balaa ngay am jabet da nga koy donn sa papa wala sa yaay léegi nag da ngay xëy rek jabet xoolal chinois yi suukar bi ñu indi benn grain buy suukar paan benn grain nga def ko ci paan mu saf sap léegi yow kon grain boobu boo ko naanee noonu moom kese foo jëm wala wala benn grain laa wax bu tuuti bu toll ne bekk suukaru jabet moom ngay jël def ko ci paanu ndox nga ñam paan bi saf sap léegi loolu bu ñu la ko defalee ci jus nga naan ko ñu defal la ko ci jinjeer nga naan ko ñu defal la ko ci ñu defal la ko ci defal la ko ci soow nga naan waaw ngay sàpparti ku rek masha allah tolli ma waay boo ci naanee ñetti fan ñu yóbbu la kër docteur ñu ngi ñu ne da ngaa jabe jeex na tàkk moo tax nit ñi war a xoolaat seen bopp waaye bu ñu yemoon ci lu ñu yàlla subhanahu wa taala xoolal fruits yi ngeen di lekk ban fruits yi ngeen mës a lekk ba ne lii de sukkar si daa ëpp wax leen ma ko mango la wala pomme la wala wala wala wala wax leen ma ko ban ngeen mës a gis ngeen lekk ko ci wàllu bu saf suukar ba ngeen ne bii suukar bi daa ëpp kan ma ko doon suukar ah allahu akbar lépp sunu borom dafa limité parce que xam na liy jëriñ doomu aadama alaa yaalamu man xalaq wa huwa latiful xabir yàlla nee na maa bind maa xam li ma bind waaw ndeysaan sunu borom waaye nit ñi ndeysaan dañ ko réere mu ne wa zeytuun ak garab googu tudd zeytuun te ngeen koy wax ah olive war rumaan ak granate yii yëpp mutashaabiha dafa nuroo waaye nag wa xayru mutashaabi am na yu nuroowul da ngay gis garab yoo xam dañoo nuroo waaye boo ko lekkee nga gis firi yi du benn xool leen firi boobu di nuroog pomme nu mu tudd poire moog pomme luy différence bi forme bi rek tuuti ak poire moo gën a saf tuuti suukar mais boo dandee tuuti nga xool da nga naan ñoom ñaar ñoo nuroo ndax ñaar yooyu rek la xool leen orange ak pamplemousse balaa ngay xam ne dafa wuute nga xool li ko lekk ah ak lingom ñoom ñett ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne sunu borom subhanahu wa taala moo ko sàkk waaye doomu aadama dara la ci defa lu dul xool li lekk wala raxas lekk borom bi nee na kulu lekk leen min samarihi ci meññeef yi ida asmara bu meññee lekk leen yàlla moo ko daganal ci yéen ban fir bi ngeen dégg yàlla ne araamal na ko ah am na xar yi ci wàllu lekk yàpp am na bu araam wala bu araamul ci wàllu yàpp am na bu araam wala bu am na bu araamul am na bu araam nu mu tudd mbaam xuux boobu kese araam ak ban mbaam sëf ak ban ak bépp bu am sell nii sell ah ñaari bëñ yooyu gaynde yor bépp rab bu ko am daa araama lekk ak bépp njanaaw boo xam ne dafa am ma xaalib day jàpp we yi di jàpp mu am bég bu lunku boobu di mel ne bégu seku daa araama lekk da ngeen waaye ci wàllu fir wi nag léegi wax la ma fir wi waraama lekk loolu question la na ngeen ko yóbbaale samedi bii di ñëw firi bi araama lekk ngeen indil ma ko ah wala lijim bu araama lekk na ngeen ko indi samedi dégg ngeen incha allah bismillah borom bi nee na lekk leen ko Sori.
Hmm.
dinaa dër kese boo ko lekkee ba pare teg ci meew poson
waaw xoox bi xoox bi non dañ ne dër kese bi boo ko lekkee ba pare nga teg ci meew. loolu waaw am na ñu koy wax de nee nañ day poisonné sa deret dégg naa ko de waaye wóoru ma nag dégg naa ko de ñu ne doom bi boo ko lekkee ba waaye araamul parce que ñu ngi koy lekk loolu tekkiwul ne dañ ko tere léegi kay li li la war mooy bul ko booleeg mais boo lekkee ba pare du noonu muy kii mooy li ñuy wax cale.
calet hmm. ñu ne daa araama lekk fu mu nekk fu mu nekk cale nu mu tudd cale calet coolof gëstul ñu ko dégg nga sam ni ngay neel ñu ko beneen bi mooy pëli moomu diina ji de bay araamal bu ko pëli araamale di islaam araamalu ko nag kon loolu tamit beneen affaire la borom bi nee na bu leen yem rek ci lekk ko waaye wa aatu na ngeen joxe xaqahu àqam azaka bi yawma xasaadihi bis bu ngeen koy góob gis nga a mbay bis bi ngay mbay ci ngay génne azaka bi waatu génne leen joxe leen xaqahu aq bi aq bi mooy lan mooy azaka bi maa wajaba fiihi min azakat lépp lu ci war ci azaka bis bi ngay gin bis bi ngay buddi gerte gi di sol saaku yi bis boobu ngay génne azaka bis bi ngay sol tàndarma ji ci ngay génne azaka bis bi ngay witti ceeb bi ci ngay génne azaka bis bi ngay bay dugub ji keroog ngay génne azaka wa aatu joxe leen xaqahu aq bi ci yàlla moom yawma xasaadihi bis bi ngeen koy góob borom bi nee na wala tusrifu bu leen yàq gis ngeen innahu moom yàlla laa yuhibbu bëggul al musrifina yàqkat yi islam day tere yàq mooy li ñu doon wax sànq ak ci lu mu mën a doon ci alal ak tout doomu aadama warul yàq ak lu mu mën a doon yàq kenn la warul comme sénégalais yi tey ni ñuy yàqee nga xam ne programme la ñuy bañ a dégg bu korite di jot kenn du dégg korite gi korite gi korite gi korite gi tey lu xew tabaski sénégalais yi seen programme yëpp xew a koy yàq kuy ngénte sax ngénte gi ngénte gi ngénte bi ngénte bi ngénte bi ah ci suba si boo xëyee di ñaan ndimbal di yónnee loo xam ne yow yàlla tegu la ko tabaski bii di ñëw nii fi mu nekk nii ñëpp fi mu nekk yenu nañu àdduna encore ati da yenu loo xam ne mën dara dara nga ci mënul waaw foog ma lekk lu yàpp foog ma sol lu bees foog ma changer samay meuble foog ma peintiraat samay kër da nga gis koo xam ne sax foog ma changer ci oto loolu ban diine la yàlla maa jaala aleykum fi diini min xaraj diine yàlla tegu ci nit coono bu doon loolu la diine du ñëw diine dafa ñëw pour nit noppalu am liberté waaye maa la saf Sénégal dégguñu diine daa nag programme bu ñëw da leen di sonal ñuy ngénte dañuy sonn bu ñuy ceet dañuy sonn bu ñuy lu ñuy def rek coono la lu ñuy def rek coono la yenn luñ mënul ku nekk dugg ci loo mënul lépp ay bor gis naa koo xam ne da doon ngénte donc dem jaay ay te- terrain am ngénte kese ñu ne ko taaw la fa nga jaay seen te- sa terrain mu dem jaay ko ba tey mu ngi luwe vraiment loolu du musiba ana ñi nga jëndaloon nag bi ana ñi nga jëndaloon kanet yi ana ñi doon lekk ceeb bi ana ñi doon lekk fermicelle bi ana mu dem na ñibbi bàyyi la ak say bor nga yenu ko foo jëm ak moom nit ñi war nañoo yeewu dégg li leen yàlla wax ñu bañ a sonn ci seen bopp bañ a teg seen bopp lu ñu mënul borom bi nee na wala tusrifu bu leen yàq waaw innahu li wër tey mbir moom yàlla tabaraka wa taala laa yuhibbu bëggul al musrifin yàqkat yi ñaatoon ngay gis kulu wasrabu wala tusrifu lekk leen naan leen bu leen yàq yàq ci boppam ak xeetam ak façon ak noo ko mën a tudde ak lu mu mën a nekk yàlla bëggu ko wala tufsidu fil ard baada islaaha bu leen yàq suuf ginnaaw bi ko yàlla defaree lépp loo xam ne yàq la ak ci lu mu mën a doon ak ci lu mu mën a nekk sunu borom subhaanahu wa taala gërëmu ko te bëggu ko te yàlla diglewu ko mu nga mu ne wa min al anaami bokk na ci jur yi xamuula yoo xam ne dañuy yenu dañuy yenu waate dañ ci yab dara mu koy yëkkati comme gëléem comme fas comme mbaam comme nag comme gëléem ay jur la yoo xam ne xamu la dafay yëkkati waate day yóbbu waate voyage wala mu yóbbu bagage waaye am na yeneen wa farasan ak yu ndaw yoo xam ne mënuñu dara mënuñu yëkkati tus am na ci yenn yoo xam ne kulu lekk leen ci mimma razaqakumullahu yàlla leen ko wërsëgal lu mel ne nag yi lu mel ne gëlëm yi lu mel ne xar yi am na ñuy lekk fas ah fas dafa araama lekk wala araamul lekk damay laaj fas daa araama lekk wala araamul lekk fas araamul ci mazhabu Malik lañ ko sib am na ñuy lekk fas waaye Sénégal moom comme ci ngirum Malik lañ tënku moo tax xamuñu fas koo fi gis muy lekk fas suba boo xëyee doo ko nuyu da nga ne nga naan kii dëmm la waaye araamul lekk mais dañ ko sib mu ngi mel ni njéeréer njéeréer dafa araamul araamul araamul de waaye cey ku ne ku dem fii kër fekk ñuy reere njéeréer laa ilaha illallah nga ñëw rek fekk waa ji def def soos yor mburóom ne la kaay lekk inna lillahi wa inna ilayhi rajiun émission boobu tudd tës bu xëyee waa ji bu xëyee suba fa la lay yóbbu pourtant araamul le am na dëkk yu koy lekk waaye gis nga yee lenn saa yi diine bi ak aada ji day dem ba mbir dagan ci diine waaye xeet ñàkk koo xam wala ñàkk koo tàmma def su ko defee ñooñu dañuy dem ba yaakaar ne loolu daa araam fekk araamul wala buñ gisee ku koy def sax ñu daal lay tam dëmm xamuñu ko Sénégal xamuñu lekk njéeréer xamuñu ko xamuñu lekk fas xamuñu ko miinuñu lekk yàpp gëléem mais yooyu araamul waaw gëléem moom sax moom waxuma sib moom dafa dagan amma ci mazhabu Malik nag ñoo sib lan fas waaye ngir yi dañ ko daganal pour lekk góor am na sell wala amul sell ah lépp lu am sell waxoon naa leen sànq ne araam na ci islaam jullit di ko lekk borom bi ne kulu lekk leen mimma ca la nga xam ne razaqakumullahu yàlla leen ko wërsëgal ngalawaay wala tattabiu bu leen topp xutuwaati shayatin yoonu seytaane yi bu leen ko topp ngalawaay bu leen topp leen seytaane rëddal li leen seytaane di yoonal li leen seytaane di rafetal li leen seytaane di daganal ngalawaay bu leen ko topp innahu li wër tey mbir moom seytaane lakum ñeel leen adduwu noon la mu biin bu biir ah lii kay leer na nañ su fekkee bëgguñu caaxaan su fekkee dëgg dong la ñu bëgg borom bi tabaraka wa taala mi la ne bul topp yoonu seytaane yi bépp yoon bu dul yoonu yàlla yoonu seytaane la wala tattabi'u xutuwaati shayatin seytaan wala tattabiu xutuwaati shaytaan bu leen topp jéegoy seytaane bu leen topp yoonam bu leen topp ñàllam yi ndax seytaane seen noon la waaye ban noon noon la bu biir ku xam noonam war naa mucc ci moom wala waru cee mucc boo xamee ne diw mi sama noon la mu leer naññ mu wan la ko mu leer naññ war ngaa mucc ci moom wala waru cee mucc lu tax ñu xam ne seytaane sunu noon la ba pare te muccuñ ci moom ibrahim bun adham laaj nañ ko ñu ne ko waa iraq dañ lay laaj yow ibrahim bun adham fukki mbir yi lañ lay laaj bokk na ci biñ ko laaj ñu ne ko yàlla moo ne ñaan leen ma may leen ñu koy ñaan mu bañ ñoo may lu ko waral mu ne seen xol yi dafa dee ci fukki mbir moo tax su ngeen ko ñaanee du la leen may bokk na ci lim leen wax xam ngeen ne seytaane seen noonu la ngeen topp ko ku xam seytaane sa noonu la nga topp ko boo ñaanee yàlla yàlla du la may kon mbokk jullit yi loolu mooy darsu tey noo ngi ñaan yàlla tabaraka wa taala mu jéggal ñu njuumte yi bu amee ay laaj incha allah asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu